salaamaaleykum sëñ bi. Mhm. yaa ngi en direct ci site bi di ci dakar comme ñu bëggoon nga présenté wu d' abord. waaw salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yëpp auditeurs yëpp maa ngi leen nuyu maa ngi tudd Cheikh Ibrahima Mbacke ñu ngi woowee Serigne maay jiite mouvement ànd yeesal Touba Kaolack fii ci Kaolack. ñu gis ne projet Promoville daal dinañu ko door ci diwaanu Kaolack Ndangaan. waaye fii di Ndorong euh, la ñu dooree lu nu mel ñu buggoon xam yéen en tant que guide religieux yéen démarche ngeen ci def. waaw démarche yi ñu def yàgg na yaatu na loolu moo sabab mouvement bi sax juddu ndax mouvement bi démb la am at ni nga ko defoo ñu ngi ko sosoon avril 2017. Euh, yitteem yëpp ak euh, xalaatam yëpp mooy lu développé Touba ak mouvement de développement la boo xam ne. day dox ngir génne nit ñi jafe-jafe ci nekk bëgg leen a teg ci li nga xam ne ci boppam mooy li président woote mooy émergent li nga xam ne président nekkee ba léegi Touba Kaolack gisul ci boppam benn yoon amul lenn loo xam ne ci boppam luy politique régime bi fi nekk la te Touba Touba gis ci dara du lenn nag ba ci rep au niveau local bi nga xam ne maire bi sax représentant euh, représentant sax kàcc Touba Kaolack amu ko donc Touba Kaolack euh, nekk na quartier boo xam ne ci boppam moo ëpp euh, moo gën a rëy centre yi nekk ci Kaolack yëpp kon lu mel noonu bu bu amee te au niveau local amu ci représentant loolu moom lu lu garaaw la muy quartier boo xam ne it nag euh, président mosu fee gagné ba mu fi ba mu fi nekkee ba léegi la waral loolu it euh, du dara mooy lu mel nii rek tali bi ñu defar rek nga xam ne yàgg nañ ko réclamer ak yeneen yeneen assainissement canalisation éclairage suñu marché bi nekk fii lu mel noonu daal moo moo tax ñooñu kay démarches yi ñu ci def nag mm, bari na ndax yàgg nañu dugg ci mairie bi wax leen ñu tali bi ak i doodaan mais amuñ ci benn yoon satisfaction daan nañu wax ne Promoville moo moo ko war a defar financement bi Badda koy financé waaye 2019 parce que lan la ma la ma xamee loolu mooy ba sànc yi commencé biir Kaolack yu nekk booru booru Koundam gële euh, du Koundam sax euh, Ndar gu ndaw sànc yi tàmbale foofu ak bii nga xam ne moo jógee Passoir jëm parcelle. damaa jug dem ci ñoom ne ñun ñu urgence lañ te boobu léegi ñu ngi koy réclamé ñoo xamal leen ne bi Promoville moo koy defar financement bi ah ba ma xamee loolu ñu xaar ñu wax naa ñu ne muñu kii ci laay def samay pexe bopp jaar ci yi nga xam ne xëy na jàpp naa ne bu ma leen yuuxoo suñu jàmbat président dana ci jot ah nañ ko bëggee woon ñu amee ko noonu kon loolu ñu ngi ci am satisfaction bu baax tey bëgg tey di sant yi ñi nga xam ne ci boppam ci ñoom la jaar muy waa mairie bi xëy na Euh, ni da leen ñi ëpp doole dañ cee jaar rek mu gaaw waaye ñoom seen lañ ma waxoon ak seen yéen mooy 2019 la woon. dana am 2018 sañ sant bu baax a tey ñu koy door tali bi bu pare ndax tali bi euh, ñu fàttali ne dina jóge ci euh, xëy ci nu mu tuddati. rond ba maanaam ci ci. penc mi ndorong bi mhm. jaar noonu jëm Ocass. waaye am na beneen tamit axe bu jógee Ocass. jëm ñaar jëm fi nga xamante ni moom mooy. lycée euh, technique hmm. benen bi tamit jógee ci rond point lycée technique bob jëm ci lycée Valdiodio Ndiaye hmm. loolu yépp bu yembé ana lan la mëna a soppi ci dundunu askan ndoro wi bari na lool sax bari na lool lim ci mëna soppi bari na ndax xam nga nit ko xamné dafa yàgg bëgg dara mënu ko am sonn ci lool ay ati at le ëpp ñaar fukki at nga ko top di bëgg ta mënu ko am ñu jékki-jékki ben jour ak ñu xey defal ko ko mbikté rek lay mëna andal ak it dundalaat dëkk bi ndax damay faral di wax ne boo gisee léeg nit di gan ñëw Kaolack bu ñëwee Kaolack delluwaat seen dëkk ñu ni Kaolack dootuma fa dem dafa bëri ndox wala dafa bëri yoo parce que quartier bam dem la quartier bam dem bu bëree ndox rek bu demee danaan Kaolack dafa bëri ndox du ne quartier sangam dafa bëri ndox bu rafetee it day dem ni Kaolack dafa rafet ndax du ne mukk quartier ba kon loolu tax ci boppam ab quartier ci boppam war a mel na war a mel ngir gan gu fa ñëw rek bu ñëwee li jugement ba mu cee joxe jugement dëkk ba lay doon ñun nag as mouvement And Yeesal Touba loolu la ñuy xeex fexe ba suñu quartier bi bokk ci quartier yi nga xam ne moo gën a émerger ci Kaolack mel na war mel léegi nag waaw mbir mi pour mu rafet da rafetal bunt bi ba pare bu bunt bi rafetee rek dana xéema mu dugg bu duggee nag lu mu fa xam ne loolu fekk waaye bëggu bunt bi moom bu rafetee dana xéema mu dugg léegi nag bu ñu xeexee ba bunt bi rafet mu jëm ci tali bi comprendre nga dafa ko ba mu éclairage bi fexe ba mu neex a xool bu ko ñu doog gën a xeex nag xëy li ne ci biir muy canalisation yeeg fexe ba inondation yi am ci biir dëkk bi di pulari da dari mana dégg waaye dal mbikt lañ ci am lool nak wax deug yalla mbégte mu mag. yaa ngi doon wax tamit ci election ndax ne nga ne president Macky Sall bimu toge ci nguur gi ba legui musta a gagné eh, fief bi di eh, ndorom mhm. ndax yaakaaroon ne ak réalisation bi ni mën naa indi coppite. déedéet mën naa indi mën naa ibi waxtaan waaye mun indi coppite fi ni pour l'instant mën naa ibi waxtaan ndax eh, benn pàcc la boo xam ne am na importance lool ci ñun. ci ku ñu ko defal ñun it dañ dañ ci jàpp ne xëy na suñu message da daawul àgg ci moom moom rek lañ daan jàpp ndax buñ xam nañ ne bu àggee ci moom ndax gannaaw ne liggéey Sénégal ko tax a jóg bu àggee ci moom dana fii si Sénégal la bokk dana ko liggéey kon nag bañ fexe ba message àgg ci moom liñ eh, eh, mu yàlla dogal mu def lii xëy na waxtaan bu amee li mu bëgg war na ko mën a am ndax fi ngi fekk ci ñu am nañu bëgg ndax travaux yi bari na bari goo xam ne ci boppam du day defar tali bi rek daal ñuy daal di am nañ bëgg non non lu mën a nekk mën na te mu defar nag mën na ibbi waxtaan ndax waxtaan su nanguñ ko woon maire bi fu mu koy xeer yuuxoo ko kenn koo xam ne autorité la bokk ci Macky Sall bu fu ñëwee ñu yuuxoo ko loolu nag loolu moom mën naa deñ léegi nag waaye nag bu dañee dañu ibbi waxtaan ñu ibbi waxtaan wax ko li nga xam ne mooy projet majeur yi nga xam ne moo nekk Touba Kaolack ñu xool ban solution la ci def bu dee fukk bu defee juróom ñu ñu mën a mën ñu mën ko accompagner loolu daal mooy li nga xam ne ci boppam moom la tali bi mën a jural président bi fi nekk incha allah. jërëjëf Serigne. nga ko nga fàttali ñu tur bi. Cheikh Ibrahima Mbacke président mouvement And Yeesal Touba Kaolack.